jaalee ni ñu ko jaalee Cheikhou Kouyaté mi mën nañ ko ko jaalee ni ñu ko jaalee Youssou Kouyaté mi mën nañ ko ko jaalee ndax day doomi Grand Yoff di doomi xaar yàlla waaye nag Cheikhou daa bokk ci réew mi représenté réew mi tépp ci àdduna ba tax le président de la république Macky Sall bu yabalee ay ndawam ngir ñu teewal ko ci bi jaaleew ko ki nga xamante ni léppam la muy Cheikh Kouyaté macha bu la yegsee dañ leen di jox kaddu gi Youssouf dañuy delloo kaddu gi soxna naata Samb Mbacke mu mu mu jaale rakkam doomam di xaritam di jaal ko bàyyam bi fi jóge macha allah muy bàyyi njugu Kouyaté mi nga xamante ni sunu lépp la ajaltu naa ko bismillah leen ziar délégation président de fond man ñëw jaale parce que man maa ko maa ko dëkk donc ñu ñaan suñu borom teeru ak jëm si di la mas sama famille bi jëm ñu ko ba vraiment ñoom bokk ak yow naqar bi nga xam ne ci loolu la mais yow ñëpp la gërëm ñëpp la sant ndax dëkk waa bi dëkk njaboot dëkk fi nga ci sa bopp kon tey jii ñu amee kenn yéen wala dara lu jàmm mais nag suñu borom muy dogal muy def nii ñu ngi lay jaale bu baax di jaale mbokk yi fi nekk yëpp sant yàlla bu baax di leen ci war a def yëpp def nañ ko ñu dara umpe yëpp xam nañ ko jërëjëf Youssou ñu delloo la gàddu gi rek. di nga jaaree rek nga ñaanal yàlla yàlla ak yàlla yu jafe yu waay def rek yàlla ak yàlla dafa yiw lépp lépp lu mu dox bu ñëw jaal si tànk yu mu dox yëpp ak jàmm ak islam la yàlla yàlla fay ñëpp yàlla yiw kon Oustaz Modou Fall ndax dafa tey ba suba kàddu gi ok mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu am tey yàlla sunu borom ñu ngi julli ci sangu-sangu yëpp mu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu jabar yi yëpp di nuyu sunu sopp mu di Sure, that's it. waaw di ko jàll li nu bokk samay way juróom bu tedd fi bàyyi ko di naan yàlla sunu boroom yàlla ko yàlla yéege ci aljanna ya gën a kawe ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ñu di ko masawu itam di ko muñloo ndax yàlla bu soxla ku soxla ñàkk yàlla dee la njëkk a bind dund xalaxal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum axsanu amalan sunu borom nee na dama bind dee bind dund ngir nattu leen ana kan mooy gën a rafet bu ngeen dellusee ci man kon mu mel ni àddina passage la ñun ñëpp dañu fiy jaar jàll li am solo rek mooy boo fi jaaree sa jaarin na rafet dee nag la Abu Bakrin Siddiq waxoon rek moo ci nekk ndax Abu Bakrin bi Seyduna Muhammad génnee àddina dafa am ku ko bind lettre ne ko xanaa di nga noppalu comme sa waaja dem na Abu Bakrin tontu ko ne ko almawtu baabun wa kullu naasu daaxiluhu dee moom bunt la rek te ñëpp ciy jaar segam ki gën ñëpp muy Seyduna Muhammad moo nekk ci biir suuf ku dul yonent bi sa bis dana ñëw li am solo rek mooy ñu rafetal jëfin yi defaraat suñuy jikko fonk jaamu yàlla bëggante soppante te yàlla tax loolu rek moom mooy l'essentiel bi ci àddina kon ñu ngi naan suñu wayjur bi dem yal na yàlla wanale koog bi alayhi salaatu wasalaam mu yéege ko ca aljanna ya gën a kawe nit nag su génnee àddina doo ko wax dara lu dul siggil ndigaale li nu bokk te muy am yërmande yàlla yërëm ko ndax tey mbokk yi waxuma la sax yonent bi waaye suñu sëriñ yi ñu gën a yaakaar sopp dem tey boo leen gëstoo doo leen gis boo tuddee Cheikhul Khadim ñu ne la mi ngi ci biir suuf nga tudd Seydil Hadj Malick ñu ne mi ngi ci biir suuf mag moo tudd ñu ne mi ngi ci biir suuf kon la nga cay dégte mooy nit delluwaayam du fenn fu dul suuf yal na yàlla yërëm ko mook way dawlu jullit yam fa fekk yépp ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah comme ñaan du doy ñu bokk jàngandoo fatiha ñun ñëpp fukki qul huwallahu ahad ak benn yéene ko suñu wuy jur wi waaye yàlla jotale ko mboolem ja tëdd barzaq ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatiha sukkul ixlaas ak bonda bismillah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 bi fiika ya Allah bismillah ikfini الدار يا الله صلي بقاء بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسيء وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر ran minka يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي الله لا يضر منك يا الله